jaajëfu tey jaajëfu tey sama gaay yi Mister Shake maa ngi nii Brooklyn New York gaay tey dama ñëw dafa leen benn vidéo ci euh, élection yi nga xam ne mi may bëgg a jaaxal Barthélemy Diaz dafa yaakaar ne dafay ñëw rek gagné Dakar euh, Ahmed Aidara dafa yaakaar ne dafay ñëw rek gagné euh girasi kerugu, dafa yaakaar ne dafay kerugu. Kédougou waaye ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko tamit mom gëm na ne moy gagner jigen chor waye man lima bëgg askan bi xam moy ne buñu dof dof lo dinañu ñak Dakar Macky Sall dina sàcc géejawaay te Macky Sall dina sacc kedugu ak fenen ak fenen man sax yoy rek lay tuddu yoy lay tudd parce que boy xol ñun yoy sax la ñuy xeex muy Dakar buñ fi djouf gañee euh, Diouf euh fële euh, nu mu djéji way ñu humilier Khalifa ñu humilier euh, Aliou Sall mu dess fan fatik dama juum Saint-Louis ñu humilier kooku nu mu euh Mansour fay comme ça mak Sall abal ñu rewmi waaye dañoo gis ne yow askan bi fan yii dañoo ne tekk tekkaaral maatam dañ ne da doo leen bokk man yaakaaroon naa ne heure bi ñoom Ousmane Sonko dinañu génn ñu yëngal dëkk bi ñu xeex ak Macky Sall ngir Macky Sall wax leen bokk ngeen maatam yaakaaroon naa ne heure bi ñoom Ousmane Sonko dinañu génn ci tali bi ñu woo activiste yëpp Barthélemy Diaz yaakaaroon naa ne dina génn Dakar Ahmed dara Nous, allons nous nous ñu génn ndax Macky Sall mi ngi élection yi man trop vous allez avoir une grosse surprise le 23 janvier da le 23 janvier nous allons nous génn di wax Macky Sall dafa élection yi duñ ko nangu ce sera trop tard il faut battre le fer pendant qu'il est chaud nous savons tous que le Macky Sall Macky Sall c'est le champion du monde du vol d'élection Macky Sall, il n'a aucun, comment dirais-je, aucune arrière-pensée lorsqu'il s'agit de voler des élections, voler à tout prix. C'est ça son credo. Lui, c'est pas quelqu'un qui est gêné par euh, la tricherie. Non, non. Il ne lésine pas sur les moyens. Macky Sall n'a aucun état d'âme. Il n'a aucune conscience gagner à tout prix c'est ça c'est ça ça devise Macky Sall ñëpp xam nañ depuis 2012 comme ni ko Pape Alé Niang di waxee le gëj a élection mais man li ma jaaxal mooy Barthélemy Dias bu toogee naan Guy Marius Sagna bul wax dara dañ laa affecté Kédougou mais bul wax dara man su ma nekkee maire de Dakar dinaa euh, nu mu tuddati dinaa la jël nga liggéeyal ma Barthélemy dafa yaakaar ne mooy gagné maire de Dakar bala nga ne naam day fekk yaa ngi fa fichier bi gisaguñ ko gisaguñ ko yéen ngeen tok tey la lan tey la lan tey la euh, xana tey la 18 euh, ma xol ma xol sama sama sama calendrier tey le 16 décembre ñaata jour mo ci dess dess na 15 jours plus 23 15 euh, plus 23 ça fait presque 37 37 38 jours mo dess weer ak touti mo dess élection yi yeen ngeen tok fi fichier seen carte électeur amna ñoo guñu jotu guñu ci ah. matam, juge yi bëgguñu wu ngeen nekk fi du wax ay ay ay affaire yu ñek fayda ay affaire yu góor wax ne bëgg xex mais vraiment Macky Sall mi ngi di nax ñun député légui ñu japp député légui député buñu bu jappé leen jàppee amuluñu benn député un ay millions rek lañu député bu nek peut-être trente millions nga sàcc Macky Sall un ay milliards pétrole bi di waaj a mu ne du ko fi bayyi gaay bo leen pétrole bi ak gaz bi ñu am té deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois ci la commencé nak xaalis bi commencé ñew Macky Sall mu jaral ko lu ne and ak sëriñ yi sëriñ yi di ñu khutba di ñu wax bu leen ànd ak politiciens yi ngeen yaakaar ne da ngeen ñëw rek gagné élection yi nii vraiment man waa yow askan bi ñu may bëgg jaaxal gis nañ fi étudiants yi di yëngal mais balaa may wax ci étudiants yi naa wax ci ci ci pétrole bi tuuti naa wax ci pétrole bi gis nga booleen leen xamoon pétrole boo leen xamoon pétrole euh, importance bi mu am li tax am na benn su may def live tey dinaa leen wan benn vidéo tey su may def live dinaa leen wan benn vidéo benn dictateur ma wan leen nu mu sàccee pétrole bi moom ak doomam ak famille am ma wan leen ko ngeen xool dëkk boobu nu mu ndóolee loolu boo ko seetaanee da nga naan Macky sàlla nekk lii la bëgg def Macky Sall dafa bëgg def comme dictateur boobu dictateur boobu am na ay kër am na ay kër partout am na ay kër euh, États-Unis partout dinaa leen ko wan kon Macky Sall élection yi nam la ci teg te mu ngi leen di nax étudiants yi ñu ngi yëngal Nous ngeen ci profité ngeen yëngal waaye gis nga les étudiants yi sax bu ñu yëngal Macky Sall ñemeewutu leen dóor kenn parce que ne bu reyee kenn fale ba lañ koy fekk ñu ko fi lenn rek lay wax non violence non violence di leen nax marche Y'en mar waroon am bële passé mu fexe ba jàmmi rax cadre unitaire

ñoom Y'en a ñoom kilifa ñu bàyyi seen marche ñu yew gii Marius Sagna sax ci la bokk looloo ñu jaaxal Guy Marius Sagna lan lay ànd ak Y'en naan day day day waxtaan ak jàmmi réew mi ba léegi ñu obligé yàq suñu suñu suñu marche Guy Marius Sagna ñu yew ñu ne dañ koy yóbbu Kédougou comprendre nga juge Téliko dañ koy yóbbu Kédougou Macky Sall mi ngi leen di def ni ko neex xam nga mi ngi leen def li leen neex di leen diviser di leen exiler mais li di gëna am importance moy fichier bi kañ ngeen di jóg yëngal réew mi parce que Macky Sall mënu leen ko gagner élection loolu il faut que mu lève sen bop bo leen démé ci élection yi Macky Sall da leen di gagné Sonko rek la xam la xamné Macky Sall dina ko bàyyi mu gagné Ziguinchor te du gagner lépp Macky Sall dina fa sàcc li mu fi soxla Sonko rek moy nekk maire Ziguinchor pour Macky Sall non la di naxé mais gis nga Dakar Barthélemy doo ko gis nga euh, euh, euh, Guédiawaye Ahmed Aïdara doo ko gagné gis nga Saint-Louis Mansour Fay moo koy gagné bu fekkee ne yëf yi ni mu mel ni tay Non la mel ngén tok fi ngén tok rek gisu len fichier waxu len ñu jox len sen carte xalé yi yëngalu len dëkk bi parce que Macky Sall leen la xam jàmbarloo Macky Sall da ngay tangal dëkk bi da ngay def marche comme étudiant ni ñu def da ngay def marche comme commerçant comme qui ni ñu def transporteur yi mu tiit yaakaar dañ koy fekk pale génne ko fa parce que américain yi wax nañ ko do def 3e mandat américain yi wax nañ ko ko dégg nga euh, Mamadou Lamine Diallo génn na mu def ci ben article ñom américain ñom ñoom ñoo pétrole bi ñoo ko yor ñom ñoo ko gis France yorul pétrole bi motax américain américains yi imposé euh, Macky Sall ne ko doo def 3e mandat jox ko xaliss ne ko da ngay def autoroute Saint-Louis Dakar lolu pour xex jihadistes yi la pour xex chinois yi la moo tax Macky Sall mënul def troisième mandat waaye dina jéem a def lépp balaa muy dem mu yàqal Sonko nga gis mu lëkkaloog euh, sëriñ yi sëriñ di génn di wax naan bu leen ànd ak politiciens yi yéen nag waaye yow askan bi xam naa ne am nga li ngeen di pare waaye seen pare bi mu ngi bëgg a yàgg te boo leen génnee il faut mu saf saf boo leen di xeex xeexal ndoo leen lépp bu leen laaj rek bu leen laaj rek euh, fichier bi yem ci boo leen laaj fichier bi da di laajaale ngeen bokk maatam ngeen bokku Saint-Louis ngeen bokku Diourbel ngeen laajaale carte ngeen yengal ngeen wax Macky Sall election bo ci satché ben carte dañuy fekk pale ñu genn la mais lolu tank defu len ko ngeen tok rek bartelim tok di wax nan gui Marius Sagna su ma maire dina la jël bartelim do nekk maire djouf sar mom gëm na né moy nekk maire Dakar parce que Macky Sall satch lay def satch na election yag na bu len fàtte né sëñ Mansour si jamil il y a 3 semaines 2 semaines génn mu wax ñu ñu né mom ci boppam idriss Seck moo nekk won Macky Sall day gagné élection defe 2019 bi mu ne ko Macky Sall moko mo wax idriss idriss Seck mo wax Jamil mu ne ko mu ne ko Macky 58 euh euh lay euh, euh, Seck am 20 Sonko am 15 en tout cas li ñu waron am dalen ko wax ñom élection yi ci nañ ko yàgg na léegi li ci dess moy ñu wacc ci terrain bi ñu xex ak mom ñu jëlé ko fi lool rek moy tax Macky Sall bañ a élection il faut que ñu tangal réew mi ne ko

2 heures heure Sénégal nous gagnons de def live nous merci vive le président Sonko vive le Sénégal